asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV kon niñ koy defee rek à chaque fois mais tey nag dañuy ñëw ba Yoff ñu seet si koo xamante ni champion la mu nekk xale nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla fi mu dëkk mi ngi fay def mi ngi fay marqué empreinte am muy Léopold nekk écurie jàmm gën si Cap Mbaaw mu def nag neuf combats huit victoire benn défaite mbër maa ngi lay nuyu. ziar Fatma Dia ginnaaw. ma sant yàlla julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant waa jàmm gën si kaa mbaabu yëpp surtout waa Yoff ma nekk waa Buur ñëpp maa leen ziare bu baax di kontaan nag si mhm. nuyoo bi am na solo moom mbër mi nuyoo na kon nañ koy waxee rek sànq def na neuf combats huit victoire benn défaite dañ koy bàyyi nag moom mu présenté wu jox li nga xam te ni tey fi mu jaar mbër ay tey soo ma doon wax sa parcours lan nga may wax. kan mooy Léopold. kan benn boola rek bu nekk équipe jàmm gën si Kambaaw fekkoon fa tamit samay grand frère di leen tarbi ku mel ni man si Diop numéro 2 ñoom si Reseras xam nekk seen ginnaaw tamit doon nangoo doon taalibi quoi ñoom ñu doom samay sëriñ quoi loolu tam am tey li ma am nii tey. donc sa enfance foo ko defee. sama ko defee jàmm mhm. gën. waaw jàmm gën laa ko defee. jàmm gën jëg saaw waaw. da ngaa terrible lool bi <laughs> booy bu cool nag. Mm-hmm. waaw booy bu cool. waaw booy bu cool laa waaw. Mm-hmm. jàng alxuraan wala jàng français. non alxuraan nag laa jàng. Mm-hmm. waaw. da nga demoon daara. waaw demoon naa daara waaw. ba nga amee ñaata at. ma amee ay six ans sept yooyu rek. waaw. ma jógee daara damaa delluwaat dëkk ba maa dëkk Passy. waaw koñ bi wax Ndramé Paté. Mm-hmm. waaw fu dëkk waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. léegi foofu noonu euh, yow lan moo lay indi kon Dakar comme que ni nga passé nga dëkk lan moo lay indi Dakar. lan moom moo andi Dakar Dakar dama ñëwoon fii rek liggéey si indi samay kele ku ñëw liggéey si mécanicien ma ñëwee gis booy di bëre ma ne ma nii ah vraiment booy nii di bëre moom tam man ma doon mécanicien ñii nii nii nii ma gis nii ñu ne ñii ñooy champion yi ah baa ma tëral kele yi rek jàpp leen maa leen mën kay mooy loolu loolu daa moom dugal ak Fallou. ak Fallou yi nga jàpp nii nii te ko fee ñëw doon bëri nga booy làmb làmb jooju ma xool man ak Ousmane Diop doomu Mansour Diop numéro doomu Mansour Diop moom laa am yàlla may ma ci ndam nag gëm loo mën a yow doon champion Fallou Lo xam xam nga encouragé ma mu gën kaa jàpp ba tey fii nii. Mm-hmm. wax nga léegi da ñëw woon euh, commencé rek mais da am da nga doon bëre da nga am papa buy bëre wala maam buy bëre. non nijaay buy bëre laa am. ko bëre na ba bàyyi bëre mosul daanu. nu tudd. ah nu tudd. <laughs> rabadaan nañ ko doon wax nañ ah, ah, ko doon xam naa ñoom père ngeen dinañ ko xam. waaw ñu ko xam waaw. nga sànq da nga am solo nga ni euh, da nga nga commencé mais yow sa mbapat nan la demee fan nga toj sa mbapat est ce que daan nga champion yoo xam te ni ñu ngi lëmbee làmb sa mbapat nan la demee. xam nga mbapat daa am ñaari façon mbapatu nomé daa am mbapatu tournoi am ban nga ma ciy laaj. ñaari mbapat yëpp yàlla def na maa ngi samay ay seize combats. Mm-hmm. benn machine yi laa ca mën a pakala bu lamsaar. pakala bu lamsaar waaw. say seize combats noonu yooyu noonu est-ce que am na mbër yoo xam te ne ñu ngi toj mbër dafa mel ni sa mbapat am na mbër yoo kii de. <laughs> bu baax kay. comme ñan première fois nga def interview te dafa jot nga wax. parce que ku def neuf combats huit victoire benn défaite dangaa war a wane sa bopp parce que am ñoom te ne ñi làmba ji donte yow daan nga leen nag léegi nag fii ci Wassare nga koy waxee nag. waaw même ligue simple bi dama comme ligue simple bi mhm. daan bëri de. <laughs> comme ku mel ni tey Modou ñu naan ko Libicoor numéro 2. Libicoor daan naa daan naa ko bari na de. mais na xam ah, nga dem naa waaw. mooy euh, Sam. waaw mhm. mhm. na daal. bëri na waaw am na yoo xam ne faatu naa leen moom am na ku ñuy wax laa laa kooku moom tamit. bëri na daal. bu dee simple. xam nga simple moom da dem tey ñu daan la. suba nga daan gannaaw suba ñu daan la comme lu mel ni Cheikh tiijaan ñaar bëree na ñaari yoon. waaw ma daan ko mu daan ma. Uh-huh. grand bañ daan naa mooy Kalmundo. waaw kooku daan naa ko mbapat mu nde dama dëkku ni jaay. bu baax bu baax kay. mais ah, loolu yàlla dool xam nga tey làmb dafa jooy ñu ne ko looy ñu ne kii dafa am doole te mënul bare mu dellu jooyaat mu ne ko damaa damaa mën a bëree te aw ma doole. laa mu dellu jooyaat mu ne man mën naa bëree lool am naa doole te kenn xamuma est-ce que nekkul loolu moom ma dal man. mën a bëree am doole te kenn xamuma. mën a dóor mën a bëre tam doole te kenn xamul. kenn xamul la yow yaa warewul sa bopp du loolu de xam nga tey Ndakaaru fii seen làmb dañuy sul ndaanaan génnee cuune boo xam ne xamul dara. noonu la demee te boo xoolee tey boo ñu fi coow lépp. li ma def si làmb dafa ñu ko si làmb voilà noonu la demee nag làmb il faut nga am fi paajan wala nga am fi nijaay wala nga am fi papa te bu nee nga làmb dëgg dëgg dëgg dëgg dañuy xool ku dàq bëree jamono joon nañ doon xool waaye léegi xoolatuñ loolu de mbër mu mun a fecc nañuy xool léegi mbër mu bëri wax. waaw mbër wax fii daa am mbër wax. giñ waaw ñu dégg la micro ngay wax lu la neex di taasu. waa génération yow di taasu di wax rek. ah te man moom yàlla def na mu mënee mu wax. Ah, kon tax doo wax pour doo génn mën cee a <laughs> juróogul rek hmm. waaw. Ah, lutte wax dëgg yàlla ñi nga li ñi nga lim rek duñ hmm. ah, euh, moom un un nañuy def. Hmm. bu joof yor boobu xees boobu. maa ko njëkk a bas ma maa njëkk a daan joof yor. ñu taseewaat fa mu génne ma par point par attaque mu génne ma par attaque. waaw. Euh, lutte avec frappe nga dugg ci ban année. 2013. si nga defee ñaar combat. deux combats deux benn affaire foofu rek nga xam ne yenn saa jàppale mbër quoi. kan la sa manager. gis damaa am combat 2013 deux combats deux victoires 2014 mu année blanche ma. Matar Ndiaye moo la année moo la mooy sama ménager. mais est-ce que tamit nekkul ni mbër nga war a bëreel tamit ñoom ñoo daw rek wala soit euh, yow yaa taamu rek. non non man moom mosuma taamu mbër. 2014 ma année balance 2015 ma ñëwaat am deux deux victoires. Mm-hmm. noonu man daal noonu laa. mais mbër ni dafa yomb trop sa premier combat yaakaar loo. Pape Sosa bu Rock Énergie. nga daan ko. la la woon. combat. ma am Raoul Kara. Gasson moo ko tëggoon. ma daan ko. sama troisième combat maam Boy Ndiaye bu yoo fii nii. Mhm. ma daan ko. sama quatrième combat ma am ko daan waay. loolu ma yaa loolu yëpp même. waaw man fii laa dëgg di. Ah. ëppale ma dara de. da nga daan loobu ma daan loobu yof ah sama sixième combat maam jëm nekk Igri Faalaay Balde. Mhm. defaral ko. Mhm. xam nga. bii mhm. de <laughs> daan. Ah! sa huitième combat. ah kon sa neuvième bi daan. yaakaar booy dama koy faata sa yenn saa yi. ba léegi da ngay xoolal ci Désalo waaw. xam nga yow bu ma jaaxal si yéen. da ngeen di daan taxaw ratatat di wax. mais xoolal sama neuvième combat rek. seere bi xoos fils de Zalmène. illaa walaay taalaay xam ba def ay fin d'affaire. mais combat boobu euh, ban promoteur moo ko tëggoon ak combat boobu noonu. Mm-hmm. ko jël xamoon nga fils de Zal. non xamoon naa ko nii nii nii rek. waaye suivre ma ko à cent pour ko tey euh, combat pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu suivre sur Wassare Lamb Wassare TV am na ñoo xamante ni seetaan nañu combat boobu noonu. tey boo féete woon à gauche Fils de Zal féete à droite combat bi ñu ko euh, nan nga koy reporter. waaw dama fare à droite mu fare à gauche. arbitre soufflé. ne ma pare nga mën na ko ma ne ko mu wax kii pare nga mu ñu lewaatoo ma dox si kawam mu arrière ma dox si kawam mu arrière. mu sànni mu sànni droite ma remise ko xam nga fii toj pour man day daw génn saa yi quoi ndax bu RK bi teepee na mu daw góos nii ma topp ko rek mu daw jël ma ma arrière arrière ba teg sama tànk saako rek saako bu rek saako bi tax gain. instant boobu bu ma jógoon noonu day yëkkati sama loxo at bi day suula waaye instant ma gëmuma man gëmuma ne kooku mun na maa mun naa am sax si man loolu noonu. Hmm, léegi loolu ko xeeboon quoi. billaay loolu moom dëgg la moom nawloowu ma ko woon moom dëgg-dëgg nawloowu moo ko woon de. nawloowu te tamit combat boobu dama si indi loo xam ne nii du sama cër. dama ñëwoon ne dama koy duma. loolu moo ma indi loolu moo ma indil lii lépp tamit damaa ne ama am naa combat ñu ne yaa kan nga am man a Fils de Zalo ñu ne yow jéem a la xeex ndax tey ñëpp dañ naan ne bëree nga man bëree nga man il faut tey nga changer solution. Mm. ma changer solution nag li ma si gis neexuma de. da nga ba nga changé dañ ci gis neexul. neexuma de. mais parce que xam est que ñoom bëgguñu doon wax ne da nga tàppet ay dóor. que ni yow bëri da ñëw rek jàppante daal. parce que tamit am tamit ndax am na ñoo xam te ne ba ma leen wax ne Léo Léopold laay jël. Mm-hmm. ma moom tàppet la du gis ko. <laughs> non bu gis ko doon nañ ma ma daanu. Ah, mbër yow ah, yow a yow kan nga mos a doon man bu ma tàppee doon. Mm. doon nañ ma ma daanu. mais yow da ngay léwtoo rek. Euh, gëmm ko ni mojjee da ngay gëmm rek ñëw kii. déglu ma ñëw kii. tàppet yi. Mm-hmm. boo xaajee ko ñu daw waaye man képp koo xam ne nii man man damay bëree man maa lay diriger léegi kon kon kon nan la doonee ragal ragal kay danga koy diriger duma ko daan ko wala. ah man daal yóbbante wala dañ ma sa mbër mi <laughs> man képp koo xam ne nii damaa bëre yow nga daan ma ma daan la man maa la diriger ba daan la. ki ma daan nii sax man maa ko diriger ba ba daanu. fils de Zal fils de Zal la waaw. mais est-ce tamit nekkul li nga nekkoon ci dynamique bu baax tey nga ne da ngay jéem a wane waat sa bopp ba faf tey affaire cuune fekk la ci. noonu la demee nag. yow danga ngaa sama gént nag noonu la demee pour man boobu gisoo jour jour bi ñu njëkk a gisante géejawaay dama ne ko nañ ko boole si lim bi loolu ta laa ko ma ne kii day day bokk si lim bi nawloowu ma ko dëgg-dëgg bu nekk dëgg rek moo neex nawloowu ma ko mhm. waaw pour yéen ñuy suivre sur Wassare Lamb Wassare TV tey ñu dal ki nga xamante ne moom mooy Léopold bu jàmm gën Sicap Mbao mu def neuf combats huit victoire benn défaite di ko nuyuwaat nag bu baax a baax moom Fallou euh, nekk koo xamante ni kenn la si suñu nekk suma xarit suma chéri di ko ziyaaraat bu wér a wér parce que lii bu amee moom moo tax mais mbër ba nga jógee foofu noonu après ci lan nga nekkaatoon est-ce que promoteur yi ñu ngi la doon contacter wala. waaw ndax bi ma fi jógee noonu noonu instant boobu man bëggoon naa bëriwaat si année bi. ndax toog noonu année blanche bi nekk noonu lu may arrangé xam nga man nekk noonu di wax sama ménagère chaque jour maa ngi koy mën a fexeel ma bëriwaat balaa saison bi di jeex. mu ne ma waaw di ma wax waaw di ma wax waaw gis nga ba tey ba suba di bi ma daana bëree lee bëriwaatuma. kon da ngaa année blanche billaahi. ok mais mbëri est que xaw a retard tuuti ci làmb. bu baax nekkul tuuti kay bu baax. lan moo waral loolu. ndax tey làmb dañ laa war a teg da dañ laa war a teg si code. xam nga di la ci chaque jour ñu. xam nga rek ñu lay guider di la teg si code quoi te amaana tey man loolu laa manqué tamit tey bu nekkee bëre bi am naa ko bu nekkee doole bi am naa ko lu mu mënta doon am naa ko yaa ngi yaa ngi waaye surtout kii bi kii bi moo des quoi jàppale bi jàppale bi moo xaw a des lu bari sax tey boo xoolee tey tey man ñi may jàppale si làmb tey ñu moo xam ne tey ñooy sama Malick Gakou tey boo ne Fallou Lo xam nga da nga naan ay ñoom Modou Ndaw booy xam nga di leen sant nag di leen gërëm tamit ndax tey seen fukki dërëm yooyu ñu may jox moo ma gënal tey milliard boo xam ne nii tey ñu ngi ma koy jox di si séentu leneen te ñoom dañ ma koy jox te yàlla rek tax séentu wuñ ci dara xam nga am na ñoo xam ne dañ lay jox benn 5000 francs nga dem làmb ja daan tuddoo leen ñu merale ci loolu parce que abadan boo leen boo leen nuyoo duñ la fay ne la may naa la keroog 5000 nga daan tuddoo ma xam nga zaaru xam nga rek waaw am na fi kay surtout suñ jaama gën fee ah. ne cinq mille lañ lay may nga daan tuddoo leen ñu ne lu tax tudduma leen merale ci loolu noonu waaye ku ma mere yaa xam. mais yow mais nag mbër jàmm gën dafa bari nag ay mbër de ndax ay Siteu fa ay ñoom Sunjata eh, bari nañ de mais sa euh, waaj ak kii mais yow ak ñoom nan la demee. sama relation ak ñoom ah. Hmm. jàmm rek. Hmm. tey ku si am combat boo wooree ñëpp ñëw jàppale la dooleel la waaye nag leneen lu si des moom yaa koy géral sa bopp mooy biir géew bi hmm. entraînement contact dañ la si jàppale. ba yow fi nga war a yem ñu yem foofu après nag jours yi nag nga répété waaw ah, noonu la demee rek. fan yi actualité bi xam nga ko mooy wàllum CNG gis nga euh, ñi bari ñoo xam te ni nañ dañoo bëgg a yor bien vrai que ni nekkul loo xam te ni par vote la yow yaa ngi ci làmb loolu nan nga ko gisee. nan laa ko gisee dañ kaa war a changé moom dëgg dëgg neexul ba neexul dañ kaa war a changé. waaw bu baax ngay. Mm-hmm. kooku dundalul làmb day dundee làmb. Alioune Sarr dundal na làmb. waaye 26 ans lu ma la wax dundalul làmb day dundal làmb. lan nga la fi def chaque jour mu indi chaque jour mu indi affaire bu bees chaque jour mu indi affaire bu bees xam loolu lu mu fi mujjee indi man moo ma gën a metti yow mbër nan ngay bëree di fay. yow nga mbër yow ñu war laa fay nga bëre yow ngay bëree ba pare di fay xaalis donc depuis kañ làmb yàgg na fi depuis suñu maam ba léegi soo gis ñu ne mbër bi day fay di bëree depuis moom bi mu fi nekkee nag loolu commencé am. imagine tey ñu bëgg ñu doon tout temps nga gàddu suñu saak dem si àll ba dem ba foofu ñu ne ko amul 1000 francs doo bëree. li simple bi. nga ne ko amul 1000 francs doo bëri imagine léegi yow amoo 1000 francs léegi gàddu waa sa léegi ñibbiti waat Dakar dafa metti barki yàlla timi nga doon tout temps rimi di jàng bëree dañ la bàyyi nga jàng bëree waaye dañ la balaa ngay bëree il faut nga fay léegi bu amul kon kañ ngay mën bëree kon léegi bu nekkee xaalis léegi daal dañ ne léegi ku am xaalis mooy bëree ku amul xaalis léegi doo bëree man noonu laa ko jàngatee de mais nan nga gis kan ñan nga gis ni instant bi ñu taxaw ne dañoo bëgg a yor CNG kan nga ci xaw a njot d'accord nga ci bu baax man de ko laa yéene moom dëgg-dëgg. ndax la. ah bëgg-bëgg rek rek. Tyson mën na ko bu baax kay am na talent bi. Mm-hmm. waaw yéene te moom laa bëgg di mu yor ko. Mm-hmm. Mm-hmm. am nga idole ci lamb. ma. am nga idole ci lamb. si lamb <laughs> bu man. Yaxya Diop. bu baax waaw. yan qualité moo la gën a neex ci mooy caractère ak fulla ak faydam ak lii maanaam talent bi mu am ci làmb waaw ginnaaw loolu na sama mag Tidiane Faye jeex na. Siteu Papa Sow noo gisee. Siteu Papa Sow yàlla na ko Siteu daan loolu de laa ci gis moom. Ah, ñoom ñaar kan moo ci ëpp bëre Papa Sow Papa moo ëpp bëre te moo gën a féeree xale. Hmm. waaw te yàlla xale lay àndal de yàlla na ko Siteu daan rek. waaw. instant yi ñi lay seetaan sur euh, wasaare làmb am na ñoo xamante ne say adversaire potentiel lañ te su ma la waxoon liwal ma ci cinq ñoo xamante ne bëgg nga bëre ak ñoom. cinq. gàkku numéro deux. géej waay booy sëy am nañ ko. yow oh. daa <laughs> xam na lay def. Hmm. ku ñëw ñu bëree. ñëw baax baax koo xam ne daal am nga cinq combats ñu bëree maa yi kii wala. yeneen boy safi. o yan booyu saf. ah mu yow mbër saf. ah ku ma gën a saf man ah. amul de. ah yow li ma wallaay def gàkku sax nii <laughs> nga def nii. non bàyyi loolu. kon yeneen booy nañ ñëw rek. ñëpp man instant bàyyi ma fi kenn. Hmm. billaay wallaay taalaay. bàyyi woo fi kenn. ginnaaw mbëru jaamu nga nii nii. waaw mu fekkee la. am na nag ñoo xam ne nag nekkuñu jaamu gën si kaw mbaaw nekkuñu jaamu gën te duma ma laale ñoom. loolu yàlla def na ko comme tey ku mel ni ay Modou Dia. ay Bawal. ñooñu yàlla def na moom man ñoom sekkatuñ sekkatuñ làmb kese kese kese léegi ay mboox lañ ko waa waaw ku mel ni sekk daanaan bu yoof. Mm. kooku moom dañoo bokk loo xam ne mënuñ kaa séddoo quoi. voilà. mais yéen booy Safina. yéen booy Safina booy ñaar deux brise de mer numéro deux. booy yooyu. ñooñu sax baax nañ ku ñëw rek ku ñëw baax na voilà booy yooyu baax na. booy yooyu baax na mais yow li moo leen man maa leen. booy yooyu baax na non xam nga tey man booy waruma leen laaj. Hmm. bilaa waruma leen laaj. tey moom ñoom defuñu si làmb loo xam ne def ma ko si làmb kon bu ma jégee di leen laaj day mel ni man damay arrière non non ñoom nag buñ jëlee xoolee bañ ne war nañu bëre ñun ñaar hmm. waaw ñu laal laalee rek. ay booy yëmbal ñoom. waaw ñooñu baax na waaw ah, euh, ñoo ñëpp baax na na laal laalee rek. waaw gëm nga musique. man non pas tellement de. oui pas tellement de gëm sama yaay rek bu ma ñaan rek c'est bon nice. Mm-hmm. lan ngay tàggatoo. may tàggatoo di sant Fallou Fallou kooku maa moom depuis booy la ba ba jamono jii nii nii. mosuñu werante si dara maa moom. même daa nga soxna. non amaguma soxna rek. waaye am nga ah, <laughs> comme di ama Fallou comme ni mu la ko waxee Sall fa sànq bokk nañ loo xam ne maanaam moom mënuñu koo séddoo moo tax chaque jour day nice di ko sant di ko gërëm ak soxnaam Fatou ama di ziare waa jaxaay yëpp bàyyi ma kenn xam nga ñoon am na fu ñu ma teg. waa Diamaguène Sicap Mbao si di Diamaguène xam nga ñoom mbës gaa yëpp maa leen di ziare di leen jox seen waaj fan si club bi tamit di gërëm ñoom Ousmane Ndiaye Modou bu Léopold Nday Ndaw xam nga Ibrahima Coy gaa yi daal sonn nañ ci trop chaque jour ñu may jaabale di ma soutenir di di ma jox seen fukki dërëm seeni i cent franc xam nga ñooñu am ma seen fay ñoom Jogomaay Sambu Touré gaa yëpp maa leen sant bu wér la billaay walaay taalaay aw ma seen fay ñoom Maxta Ndaw sama doom baay di waa Passy yëpp nag bàyyi ma bàyyi ma sama yaay xama sama papa sama mag yi ñëpp maa leen gërëm di leen sant bu wér a wér di gërëm tamit sama waa koñ jéggi raay mu ne ragal du jéggi raay. man dëkkuma raay laa dëkk. waaw man la demee nag waa jéggi raay bi mafia bi jaase ru yëpp maa leen ziar bu wér. waaw teg rek dóor ñooñu ñooñu tamit maa leen bu wér yooyu noonu la demee waaw. di ko bëggee waat uh, bu baax a baax muy Léopold nekk écurie jàmm gën si Kambaaw def neuf combats. huit victoire benn défaite di ko béggewaat bu baax a baax di ko ñaanal yàlla moo xam li mu bëgg yàlla ko yàlla defal yàlla may ko euh, parcours bu gën a gën a leer parce que tamit wax dëgg yàlla ay champion rek la bëreel ay champion rek la daan kon ay moromam nañ ko jël mais kon ni ma ko waxee rek sànq Fall mooy borom émission bi di ko remercier waat bu baax a baax parce que ndaw la te gëm na boppam te ñun moom képp koo xamante ni da ngay gëm sa bopp rek dañuy xaritoo ak yow daf ñuy neex naan ko lépp luñ fi wax wala lépp loo xamante ni rek ki nañ ko ci émission bi jëlal Fall yaay boroom ndax yow kenn du yow wasaare bëgg ma sama doom ndey ah, di ko waat bu baax a baax moom séeréer bu nice cantam ngërëm ñeel na ko sama cameraman ndax su ma ne ko acca mu ne acca ne xeebul mbër mu mag xeebul mbër mu ndaw ah, di jox ñëpp dig daje dig daje ba prochainement incha allah jaajëf